problème mu nit ñi la leneen biee yi mm-hmm. euh, stade bi euh, cinquante mille places la mm-hmm. on a commandé quarante huit mille billets quarante huit mille billets yi dañu xalaat ni dina feesal stade bi parce que stade toujours dafay am euh, li ñu koy marge sécuritaire moo tax doo jaay doo commander cinquante mille yëpp mm-hmm. boo dindee deux mille yooyu si génn dafay am si stade bi aussi ay places yi nga xam ne bokkul si place numérotées yi donc marge sécuritaire bi ma nga fa duñ ko utiliser les cinquante huit mille billets ñu commandé. quarante huit mille. quarante huit mille billets pardon ñu koy commencé commercialiser à part de tey. Mhm. stade Demba Diop stade Iba Mar Diop stade Alassane Djigo stade Amadou Barry mairie Diamniadio ak yeneen point de vente DJ pour ñi nga xam ni dañuy jënd biir fédération ak ñi nga xam ni lions yi. Mhm. dañu jaan jënd ay quotas ñoom it seen quota ki leen koy jaay dinañ koy jaay. billets yi dafay commencer cent cinquante mille ba deux mille francs cent cinquante mille mooy li ñu tuddee VVIP mooy li ñu tuddee loge centrale loge latérale cent mille francs mhm. le chaise biliard mhm. VIP loge cinquante mille mooy photo yi nekk ci digg bi jaune yi mhm. latéral annexe VIP quinze mille francs lay jar central jaune dix mille francs centrale latérale cinq mille francs central rouge 3000 francs sa latéral rouge 2000 francs loolu mooy prix bi. merci merci beaucoup. Ah. jërëjëf jaajëfal nañ leen bu baax a baax waxtu yu moonu xado xaw a xoj. ah ñu bàyyi leen